problème bu am solo la bon ngeen posé ni mooy question immigration. bu mhm. nekk question boo xam ni je crois c'est depuis temps Ablaye Wade. dans les années lañ commencé woon am boobu problématique ba mu ñu indi ci li ñuy wax un plan Frontex. Mhm. muy union européenne lëkkaloo ak yenn pays africains. Mhm. pour ñu renforcer seeni police. et boo seetee am na ay projets yu mel ni Prodac. historiquement bañ koy bañ koy bañ koy euh, fondé mhm. c'était pour que européens mhm. di financer les pays africains mhm. pour que ñu mën a téye seeni doom ci seeni réew mooy nekkoon le plan de retour des immigrés donc ah, vers le j'en parlais tout à l'heure vers leur gis naa information bi nga xam ni donc ONG espagnole bi euh, génne na ko bërki démb le communiqué parce que du ma ni démenti parce que boo liiree bu baax a baax ONG parce que les choses il faut que mu leer ci bopp sénégalais yi ONG espagnole bi dañoo def benn communication ni am na ñetti bato yoo xam ni war naa am lu tolloog trois cent nit bu jógee Kafountine boo xam ne bi mu fa jógee léegi mat na trois semaines mm-hmm. perdre nañ ko de vue en mer mm-hmm. vers les îles Canaries mm-hmm. am na tamit beneen boo xam ni des na def na environ deux cent personnes boo xam ne moom localiser nañ ko mm-hmm. alors le ministre euh, des affaires étrangères génn na benn communiqué démb ni ñoom ci seeni xayma yi ñu def seen recherche yi ñu def yëguñu trois cent personnes yooyu réer ci biir àll bi ci biir géej gi wante am na deux cent soixante personnes yoo xam ne sauvé nañ leen mm-hmm. dans les côtes marocaines donc weddiwuñu en fait la nga xam ni mooy trois cent personnes disparues mais ci seen communication dañoo yokk lëndëmal xelu askan wi dans des situations comme ça état dafa war a ab responsabilité bu mat sëkk mooy jël les moyens dem waxtaan ak ONG bi recouper information bi joxe information bu leer au Sénégal parce qu'il s'agit de vie humaines et il s'agit de trois cents vies humaines mm-hmm. Mm-hmm. vraiment damay woo le ministre des affaires étrangères mu approfondir ses recherches gën a saytu la nga xam ni moom la ONG espagnole surtout boobu ONG mmh. on ne l'accuse pas de partialité mm-hmm. parce que ñoo xam ni la seen liggéey mooy di sauver ay immigrants. mooy di dalal ay immigrants. mooy di fexe ba immigrants yi bundu bi police européenne en général. Mhm. police espagnole police euh, italienne en particulier di def ñu koy ñu ci protéger. migrants yi mhm. mhm. donc euh, ce communiqué du ministre des affaires étrangères donc ne règle pas du tout problème bi nga xam ni moom lañ posé. et je les appelle à plus de responsabilité ñu gën a xoolaat mbir mi.